tëngërëm lañ leen di wax sa su nek rek ñi fo site internet di buzz mtv Senegal bu leen fatte di abonné di buzz cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw ci seen xibaar jërë ngeen jëf ci and bi ak eh, top bi nga xamantene rek ñu koy top ci site internet bi di buzz mtv Senegal li gëna a ci bop xabar yi nag dañ koy do rek wàllum njuuj ak eh, ki nga xamantene mom moy mustapha drame ñu gën ko xam ci turu ay kesse nak verdict ba nay wacc fu fa ci tribunal franklin déli bu ndakaru nikete ci suba ci coow la doxoon ci diggante Moustapha Dramé mi nga xamante doon nañ ko wooye ci turu yàlla kese ginnaaw bu ñu ko accusé ci wàllum njuuj njaaj ak Serigne Thiou nag daan nañ ko ñaari at kaso yoo xamante rek da koy tëdd ba noppi daal di koy amande toll ci deux de francs CFA yoo wax euh, rek da ko war joxe comme euh, ndàmpaay moom oustaz Moustapha Dramé nag daal dinañu koy. Euh, daan ñaari at ci kaso ba tey nag ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu dañuy àddu rek wax ci Cheikh Bara Ndiaye mi nga xamante ne daan na yëkkati kaddu ak mouvement bi ñu dippee Modap nga xamante ne rek jamono ji nak ñom ci seen eh, jëm bëpp rek ab mouvement la bu bot doomu daaro patriote ñu dippé ko modat mom nak dat ne addu rek te ki nga xamantene mom moy Cheikh bari ndjay mom moko dal di jité mom sax candidat la eh, ci élection législative yi nga xamantene rek fasina nañu ko amal eh, ki 17 novembre ci bagnoru parti Pastef dat ne yëkëti loxom di naqarlu bu baax série bi ñu dippé xaalisso ta muy daw nak ci RTS dafa gis na rek production bi dañ koy doxalé dañuy dal di tutal rek ñi nga xamantene rek ñom ñoy jàngalé katu alcorane yi waye mom ci jëmi boppam rek daal di addu ne na ci communiqué bi nga xamante ne rek daal nañu koy fësal moo dab ma ngay daal di naqarlu bu baax nag propagande bi nga xamante rek eh, ci réew bi di Sénégal ñoom mouvement bi ci jëmi boppam ñu ngay sàkku rek eh, ci boobulee série nag ñu mi ak li nga xamante ne rek moom lañu wax ci alxuraan respecté nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy maître yiy jàngale boobu li alxuraan eh, ci ab communiqué bi nga xamante daal nañ koy fësal nag jarale ko ci turu yàlla buur bi ñoom mouvement boobu nag ne rek ñu ngi euh, ñoom nag mbir na nag ñoom ñooñu nag daat nañu yëkkati seen kàddu daal di sàkku rek ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy fësal yooyu le théâtre nag daal di koy dakkal ci nu gën a gaawee ndax ñoom nag dañoo daal di gis ne rek loolu menace la te yàggee nag mën na am njeexital ci société bi rawatina nag rajo télévision bu mel ni RTS di fësal nag yooyu les xibaar mu leer ne ko nekk askan wi di mu daal di fësal image yoo xamante ne ne rek day respecté euh, suñu diine mu nekk ab xibaar boo xamante ne rek daal dinañu koy xaatim ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax mi nga xamante ne daal dinañu koy convoqué euh, foofa ca police moom mi nga xamante ne rek ab leader la jamono ji daal mu ci guddi gu bët setagul mel ne ak dënn rek moom moo daal di wàcc ci kawam moom mi nga xamante ne rek ab promoteur la nekk leader politique Alpha Oumar Sow ni ki tey nag yema fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre ci atum 2024 dañ ko jébbal nag ab convocation boo xamante ne rek commissariat bu yëmbal moom moo ko daal di jox ne na nag na daal di teew rek ci kanamu autorité policière raison yi nga xamante ne rek moom moo tax ñu daal di koy jox convocation nag xamaguñu ko waaye nag mu mel ni rek boobulee convocation daal dinay jur nag ay question ci ay jegeñaaleem rawatina nag ñi mu bokkal rek langum euh, politique bi ah, ba tey ci convocation bu nu mel nag lam ci daal di xam ne ne daal yaayam moo ko wax ne ko rek ñaari policier yu jógee ko nag ci commissariat centrale bu commissariat bu yëmbal ñoom ñoo fa ñëw daal di koy jébbal ab plainte mu nekk situation boo xamante ne rek ñu ngi ko ko signalé ci jamono bi nga xamante ne rek mu ngi doon liggéey foofa ci aéroport moom nag da doon def rek ab liggéeyam daal dinay dëggal que ne nag musul def musul wax lu ñaaw kenn kon nag convocation bi nga xamante ne daal jox nañ ko ko nag du ko yëngal benn yoon ci engagement bi nga xamante ne rek am na ko ci lànkum politique bi moom ci jëmi boppam ne nag du noppi ci injustice bi nga xamante ne rek daal nañ koy jël teg ko ci kaw ndoddam ne na nag bu fekkee ne rek justice ci jëmi boppam dafay tëddee ndey ju seex maanaam daal tëddee njaaxanay bañ a am ak parparloo ak favoritisme kon nag lii di démocratie dafa war a sukkandiku ci liberté d'expression ak engagement bi nga xamante ne rek citoyen bi daal dina koy am neneen ne dina dem wuyu ji ca commissariat boobu comme nag na mu waree citoyen bu responsable bu respecté nag suñu institution bu réew ci mbir mu nu mel maa ngay daal di fàttali ne amul kenn koo xamante ne rek tey jii mën na ko teree wéyal combat bi nga xamante ne rek mu ngi koy combattre ci réew bi di Sénégal ngir ñu mën a am nag égalité ci sañ-sañ waaye respecté rek li nga xamante ne moom mooy liberté individuelle nee na nag jafe na lool waaye moom ci jëmi boppam rek euh, dafay ànd ak détermination bi nga xamante ne am na ko ak engagement am di kaddu kii di Arfa Oumar saw ba tey nag ci wàllum xibaar bi ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax ci Père Bakaye mi nga xamante ne rek jamono ji daal euh, ma ngay gestu rek bopp président bu CNG moom Bakaye Mbaye nag euh, daal nay fësal lekk ni ki tey ci àllarba ji que ne candidat la ci post président comité national de gestion duppee ko CNG ni ki tey ji nag comme candidat ñeel reporter communication traditionnelle bi nga xamante rek yàgg na ko teel ginnaaw ñenn ñi nag dañoo daal di gis ne rek ku am expérience ci wàllu bi la ndax nag depuis ba nag rek ma kon nag programme bi nga xamante rek war na ko indi mooy eh, coppute eh, ci wàllum li nga xamante ne rek moom mooy eh, CNG moom nag yemul ca ginnaaw proposition yi nga xamante ne rek jot na ko def kii di Bécaye mbay nag nee na daal bés bu ñu ko tabbee rek ci bopp CNG nag dina délocaliser activités yi nga xamante ne rek ci ndakaaru lañ koy amalee di ko yóbbu nag ci yeneen région yi weer bu jot daal dinay wax nag ñàkk assurance yi nga xamante ne rek mbër yi daal dinañ koy am saa su seen carrière jeexee mu nekk nag forme boo xamante ne rek dafa laaj gestion lutteurs yi waaye nag bu manageurs yi rawatina nag objectif bi nga xamante ne daal dinañu koy am ngir participer ci jeux olympiques yi ne nag bés bu ñu ko tabbee rek mbëri ci seen jëmi bopp dinañu am nag assurance moom ci jëmi boppam rek ne na bi nga xamante ne rek daal dina koy am ci làmb ji nag dafa daal di insister ci njëriñ ji ak intérêt commune bi nga xamante ne rek dafay ñoŋal bu baax lii di làmb ji ginnaaw bu mu préciser rek soit finalam que ne nag ki nga xamante ne rek moom mooy ministre des sports moom ci jëmi boppam moom mooy tànn waaye nag moom nag nee na du nekk ci campagne électorale nag waaye bu fekkee ne rek choisir nañ ko pare na pour collaborer wu ak ki nga xamante ne rek moom moo nekk futur président di kaddu kii di Bécaye mbay ba tey nag ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek wax ci Ndella Madior Diouf mi nga xamante ne daal dinay yëkkati kàddoom ne nag jafe-jafe dëgg lay dund ca kaso bi nga xamante ne lañu ko daal di denc mu daal di koy xamle nag ab jegeñaaleem moom Ndella Madior Diouf mi nga xamante ne rek dañ ko fëggoon su mandat dañ ko fëggoon ba noppi baat di koy placé sous mandat de dépôt ni ki décembre nekk fondatrice orphelinat Kër Yërmande nag ginnaaw rek biñ ko doon toppee non assistant à une personne en danger moom ci jëmi boppam nekkoon directrice Safir FM nag daal dinañu koy tëj depuis décembre boobaak léegi nag def na fukki weer ca kaso go bu ñu sukkandikoo ci l'observateur mi joxe boobu lee xibaar nag jëlee nañ ko ca chambre 3 daal di koy yóbbu ca chambre 6 waaye lan moo tax daal di koy euh, changé fa mu nekkoon ba tey groupe Futurs Médias mu ngi xamal ne sëriñ bi nga xamante jamono ji fa nekk ci ab mat laa lay tëdd bokk ko ak beneen nit waaye boobu lee chambre juróom-ñaari doomu aadama rek ñoom ñoo fay daal di yeewoo ne na moom ci jëmmi boppam rek lépp li koom-koom li ne dencoon na ko rek mu ne rek pour nga dund dund ku baax faw nga génnee xaalis faw nga jënd ay produits hygiéniques lépp loo xamante ne rek di ko soxla nee na moom ci jëmi boppam rek moom ci jëmmi boppam rek mënta subvenir li nga xamante ne rek moom mooy ay bëgg-bëggam rabatina nag détenu yi nekk foofu noonu mu daal di cay nag ba tey bu ñu sukkandikoo eh, ci le quotidien mi joxe boobu lee xibaar kii di Ndella Madior Diouf jamono ji nag ma ngay xaar rek ab procès boo xamante ne rek xaar bi nag dina yàgg lool ndax moom ci jëmmi boppam rek eh, bu yàggul dara nag defoon na ñaari demande ngir sàkk mu am liberté provisoire waaye nag mujjul ko woon am ñi di avocat am sax sàkk woon nañ ñu takkal ko ab bracelet électronique ginnaaw bu ñu ko jébalee rek maître Aboubacar Kane dafa daal di bañ mbir mu mel waaye nag ci mbir mu nu mel avocat moom ci jëmi boppam rek sonnagul benn yoon ndax ma ngay xool rek ban option lay def ba génnee ko ca kaso ba ba tax na nag l' mu ngi daal di xam ne nag audience nag ñu ngi koy sàkku rek ngir ñu mën ko juger ba tey ci kanamu juridiction bi ba tey rek ci wàllum xibaax nag bu ñu jógee ko foofu nag dañ koy daal di jeexale ak ki nga xamante ne rek dañ koy dal di jeexalee ak législative yi 2024 région yi nga xamante ne rek moo poussé kii di Macky Sall nag ngir mu bëgg a bokk rek ci yooyu lay jongante ni ki talaata nag ci scène bi nga xamante ne rek dalaloon nañ ko ko moom ancien président de la république bu Sénégal daal dinay wax région yi nga xamante ne rek moo tax mu bëgg a bokk ci élection législative yi nee na nag nangu na pour may doole opposition bi waaye nag bañ rek ñu nekk ci nguur gi daal di am majorité foofu ci assemblée nationale ndax nag bis bu ñu ko amee rek dinañ yóbbu réew mi foo xamante ne rek fu ko sénégalais yi bëggul woon la ginnaaw bu ñu ko daanee nag ci élection amoon na niki ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ci atum 2024 moom ancien président daal dinay dëggal ne rek moom ci jëmi boppam moom moo nekk tête de coalition takk wàllu Sénégal kii di Macky nag waxagul benn yoon lekk ci kañ la war a ñëw ci réew bii di Sénégal ba tey ci wàllum xibaar ki nga xamante ne rek moom mooy Mamadou Oumar Ndiaye daal nay jël fonction am nag moom moo nekk patron bu yees bu conseil national de régulation de l'audiovisuel du CNRA Mamadou Mamadou Oumar Ndiaye daal nay jël fonction am nag ni ki démb ci cérémonie passation de service bi nga xamante ne rek doon nañ ko amal mu wutu fi nag ki di Babacar Diagne daal nay rafetlu liggéey bi nga xamante ne rek naataangoom bi daal dina koy def ca bopp CNRA waaye nag moom ci jëmee boppam rek daal fas fas yéene nag tombeel élection législative yi nga xamante ne rek nit ki di set novembre lañ ko fas yéene am mu nekk sixième expérience ci wàllum élection waaye daal dinay préciser nag ne amul kenn ku démissionné waaye nag mandat ki nga xamante ne rek moom mooy Babacar Diagne dafa daal di jeex looloo tax nag mu jógee koo fa moom nouveau président bi di mama Mamadou Omakha Ndiaye daal nay wax rek ci sensibilisation bi waaye nag daal nay addu rek ngir ñu respecté bu baax nag li nga xamante ne rek moom mooy critères yu général jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné parce que cloche de notification yi ngir mën a am xibaar